dama ko noom dama koy wóor na yàlla dama ko noom dama koy dégg lii dem ci sama dana bi moo koy dégg lii dem ci sama dana bi moo koy dégg bilaay dama ko noom dama koy dégg bilaay dama ko noom dama koy wéy ah dama ko noom dama koy dégg dafa bari bagage dama koy dégg dafa jóge lool dama koy dégg ni Abdou Galas ginnaaw bi mu nekkee doomi géwal judd ci màgg ci yaru ci waaw ah, dafa am nag suma benn mag boo xam ne muy Galas moom wax dëgg yàlla li ñu dugal ci way am na ci place quoi parce que mën naa ne dañ doon ñaw mais su dem ay mbapat di ñu yóbbaale ay simb ay ngénteeg lépp lu muy dem yóbbaale ñu yàlla dogal ñu dem a dem a dem ba loolu nekk ci ñun ñu koy def moom tamit bi mu dem bi mu defee album moom xëccu ñu teg ñu ci ginnaawam ñu koy aw loolu dugal ci way nag ba tax xam rek li nga nàmp deret lay doon ci yow saa bu yëngoo nga jug mais tamit nag loo xam ne nii la lu lu jàng la quoi. dëgg la ñu gis ni yow galas bu musaan di tëgg fenn ci boîte yi wala dara yow yaa joué première partie di ko awul et tout yow sa diggante ak Abdou Galas ak Galas sa mag. lan la. waaw sama diggante ak Galas bokk ndey ak baay la xam nga bokk ndey ak baay moom ñoo bokk ndey ak baay dafa neex mu jël ma teg ma ci ginaam di ko aw ma koy aw yàlla dogal na aw naa ko plus de lu ma 10 ans wala lu ko ëpp waaw mais nag bi bi bi ñu demee dama dem ba nga xam ne nii nii li ñu naan ñor te ñor sax suñu borom sax moom dara ñorogu fi quoi mais bi ñu demee ba nga xam ne nii war nañoo mën a nekk ci suñu yoonu bopp après moom mu ñaan bàyyi ñu ñu dem ak suñu bopp loolu la rek. kon mun naa ni yow da nga ber sa daara léegi yor sa yëfu bopp yor sa orchestre bopp aussi. waaw wax dëgg yàlla bi may nekk si galas sax. dama daan jouer ay soirée ndax suma premier anniversaire sama premier anniversaire maa ngi ko defee Pentola te boobu defe naa ni maa ngi ci ginnaaw galas deuxième bi Alizé tamit maa ngi ci ginnaaw galas yeah oui mën naa ne même Saaraba bi sax ah maa ngi ci ginnaaw galas mais xam nga instant yi nii moom Abdou Galas mi ngi ci ay projet boppam. si ay yëfu boppam waaw yëfu boppam. te ku nekk tamit loolu lay ñaan yàlla. dëgg la mooy nga nekk ci sa ginnaaw mag ba suñu borom dogal après nga nekk sa yëfu bopp. dëgg la ñu gis nii am na leen loo xam ni tey gàllankooroon na artistes yi gàllankoor ñëpp muy mbas mi nga xam ni moo fi toogoon di coronavirus. Mm-hmm. tey jii yéen loolu noonu. yan yëg-yëg ngeen si am ndax métti na si artistes yi nga doon tëgg chaque samedi chaque weekend ngay tëgg di dem fu ne des fois nga fortaatu. di tëgg si ay jàkkaarloo et yooyu yëpp jékki saay rek dakk waaw xam nga mooy li may faral di wax rek métti na boo ne méttiwul da ngay wax lu la neex rek parce que nga toog benn at boo xam ne géo defoo dara loolu métti na. presque deux ans mais nag yàlla moom. tamit gëmul nelawul te moo yor jaam yi li ma koy faral di wax tey jii nii nii nii gémmiñ bu mu sàkk dina ci def lu borom dundee dina metti trop mais yàlla moom moo yor jaam ñi ah ñu koy ñaan yàlla moom mi nga xam ne nii moo fi indi feebar mu teggi ko mu teggi lu ñu ko ñu mën a dellu ci suñu yitte de mën a reprendre parce que nekk na loo xam ne nii nii nii lu metti lay doon quoi surtout ñun artistes yi ñun artistes yi moom defe naa ne corona ñun la gën a bañ. dëgg la ah ñun moom bëgguñu. <laughs> ñu gis ni instant yi nii lépp loo xam ni dañ ko ajoon rek àjji nañ ko. Mhm. Abdou Galass si biir àjji boobu rek brusquement moom am na loo xam ni taxawal na ko. le 4 avril si je me trompe mhm. muy benn soirée boo xam ni dafay may ñi nga xam ni tey ay soppeem lañ ay fans lañ. Mhm. parce que Abdou Galass bu wootee ñaari tali Grand Dakar waagu ñaay HLM benn tali zone 3 laay wax Sénégal sax laay wax. ñëpp dañ koy teewee. Abdou kon yow yàqamti woon nga lii nii jeex. waaw xam nga liggéey dafa am solo boo nekkee ci liggéey di ko def doo bëgg a def lu dul loolu moo tax bu suñu borom dogalee ñu teggi loolu nga dellu ci say yitte loolu da koy sant yàlla dañ koy sant yàlla suñu borom di ñaan yàlla mu nekk lu continuer feebar bi juge fi partout ba nga xam ni gars yi dañuy libre nekk ci suñu yitte mën a delluwaat loolu moom 4 avril incha allah waaw ñu ngi ci ñu ngi ci war a def événement bu mag. incha allah ñu ci war a defee parce que suñu soppee yi dañu namoon te ñun tamit dañ leen namm kon faaw ñu may leen dara loolu la rek. waaw loolu moom dafa mel ni leer na parce que ku si mel ni tubaab chéri Awa Ndiaye borom ñaari tali moom yaa xamti woon na genre ndaje yooyu. ku ci mel ni Ligue Yanga sa fans la. Mhm. su ma demee néegam seeti ko. Mhm. Abdou Galas ba ni may ñibbee. kon ñooñu noonu dañ namoon loolu kon Abdou. tey jii nii le daal yaa ngi préparer lu doy waar pour fans yi lu doy lu doywaar waar le ak le 10 ndax sama yaay yi nekk ñaari tali ñoom tamit nee nañ bu ma tëgalee xale yi ñoom faa mu tëgal leen kon ñoom xam nga mooy li may wax rek jàmbaar amul ku yàlla dimbale am mais boo nekkee ci gox wala nga nekk ci réew fexeel ba waa réew ma bëgg la man dama nekk benn dama nekk nit koo xam ne nii. ñi nekk sama ginnaaw sama yaay ku ne fu ne lañ may ñaanale fu ne lañ may woo di ma jouer ay mariage te mën naa ne album sax amaguma ko ay single laa def ñu bëgg ma lool nag ah may ñaan yàlla suñu boroom may leen wér may ñu wér ba li nga xam ne nii moom lañuy ñuy sént ci Abdou Galass ah mu nekk loo xam ne nii nii nii nii lu positif lay doon mu bañ a nekk lu négative waaw parce que vraiment yombul quoi ay nit bëgg may nuyu waa xombal nag sama dëkk dëgg la xam nga xombal man fa laa juddoo fa laa yaroo mhm. ñu bëgg ma ñoom tamit fu ma xewlee dañuy jugee xombal ñëw ba fii abdu Galas mbokkum Sénégal la mën naa ne Abdou Galas mbokkum Sénégal la te loolu dañ koy sant yàlla dañ koy sant yàlla ñëpp ma bëgg mais nag jàmbaaramul ko yàlla dimbalee am dëgg la yàlla nañ suñu borom teg loxo xam nga ni poobar du romb soble moo tax ma ni yow album album bi yow lan moo ko teree ñor instant yi Abdou lan moo teree ñor album bi mi ngi si soos yëpp Abdou mi ngi mi ngi def feuille flamme jàkkaarloo yi ngénte yi Abdou Garas fuñ ko woo mu dem soirée bu ko tëggee fermé macha allah loolu am nañ si lu ñu leer léegi lan la album bi di xaar dafa wala album bi ñu ngi ci nag parce que xam mën naa ne bu dee album live def nañ ko te xam nga lu tax njëkk a def album live dañuy dañu dañu dañu il faut ñu natt suñu bopp rek won won ne ñun live moom la ñu jàngee ay woy moo tax ñuy may nuyu Papis Konaté bi ma def album da dafa moo ne ma ñëwal boo ñu defaral album live ñu dem ma dem studio enregistré fa six titres yoo xam ne nii live la ñu tas ko ci dëkk bi nit ñi kii ko mais du yàgg dara albumu Abdou Galass nañ ko xaar yow xam nga ne borom boutique mbaga boo gis grossiste lay yootu yàgg na loolu xam nga ne kon album bi mi ngi ñëw ak yeneen ak yeneen. loolu bi di la yàlla nañ yàlla nañ suñu borom may fan bu gudd rek. ak wér ak fekke ah amiin léegi ma ñëw si kenn koo xam ni yéen a bokk ñaari tali bi mm-hmm. bokk milieu bi ngeen nekk uh-huh. muy milieu artiste bi nekk milieu way uh-huh. muy Tarba Mbaye mm-hmm. sa digganteeg moom mm-hmm. gars yi am na ñu koy def bi ñii naan Abdou ñii naan Tarba yow léegi loolu noonu bi la wala du derbi waaw no maanaam xam nga àdduna bi ñu nekk nii nii nii euh, concurrence ci lu mu amul loolu du baax dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii nii concurrence mais concurrence ci lu baax muy lan génnee lu neex jox fan si gaay yi moy limay faral di wax rek sentu asaman jarul buuxante mom dafa nekk ci yoonam mais man dama nekk ci sama yoon day prouver mais man tamit damay prouver ci amna ñu ko bëgg mais man tamit amna ñu mu bëgg kon sentu asaman jarul mais est-ce que yeen ñaar am ngeen ay relation yu profond yeen ñaar. sunu euh, bu nu am nañ relation mhm. parce que jamono yi may awu galas daraan ñu soirée galas. bu ñu nee soirée galas am na ay soirée yoo xam nii sax maak moom ñoo ci bokk way muy may nekk di way ci kanam mu nekk si ginnaaw di ma aw kon am nañu relation ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dund nañ ko jot nañ fekkante ci maa ko jëkk ci ay wayu si ak mbapat mais jot nañ ci fekkante kon amuñu amuñu benn amuñu problème daal sincèrement mais nag aar dafa nekk loo xam ne nii boo ci nekkee da ngay bay sa waar nekk ci li nga war a nekk yee dox ci li nga war a dox après vous mais Abdou n'est ci milieu art. un milieu musique. Mhm. récemment dimanche passé. nous mhm. un grand homme. John Balago, le parolier de la musique sénégalaise. Abdou yow lolu nan nga ko dundé jour bobu ba nga Papa na Wa vraiment naxar la. oui mais profito di di jaale wat fami sek yeb eh, di leen masaw di len wax ne lu métti di jaare wa sen di jaale monde entier ndax chon légende la Papa chon légende la quelqu'un le passé def na ci musique loo xam ni ni ni ken dotu ko fàtte parolier la moy comme ni ngui koy waxee ni koy ñaanal fa mu teud gënal ko ah fi mu joggé ndax nak nit ku bax la man mi ni ni rek amna ay projet yo xam ni warna ko def warna ko def ak muy te suñu borom dogal kii ndax bi mu fa demee rek bu yàggul rek avant moo dëdd mooy li may faral di wax rek nit ku dëdd moom lépp loo koy see waxal bu yeboo nga xam ko euh, jox na ma ay woy yoo xam ne nii maa ngi ko doon réviser war ko dugal ci studio kon bi ma xëyee fajar ñu ne mu Papa Thione na nekk na loo xam ne nii nii way lu ma metti la mais nag ku dul may sa bopp moom luñ la jox nga jël yàlla mu moom jaam ñi way te ci moom la ñu jugee ci la ñuy dellu bu defee benn affaire nag dina metti ci ñun mais nag après dañ koy jëlaat sant xam ne ñun ay jaam rek lañu woy di ñaanal yàlla ñi mu bàyyi rek am xolu muñ woy ñu koy ñaanal tamit nag ah fa mu tëdd woy suuf sedd ci kawam parce que man mii nii vraiment amoon na amoon na yéene ci ñun ndaw ñi amoon na yéene ci ñu ndaw ñi ah moom ku amoon yéene ci ndaw yi la parce que am na ay projet yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon teg ak ndaw yi te suñ borom dogal

tey jii nii lan mooy secret boobu noonu ba Abdou Galass ku xewle rek moom ngay njëkk xalaat pour mu ñëw jouer la. secret Abdou Galass du dara Abdou dafa jàppe ne dafa jàppe boppam ne benn Baay la rek mooy ni ma koy faral di waxee yàlla mooy dogal ne yow lii da koy def woy ngay def mais woy bu su jeexee doomu aadama kese nga. te mooy li may faral di wax mën nga louer chaise louer basse mais doomu aadama yi kenn mën na louer parce que ku ci nekk. amna lu muy jar. lolou leer na ngi Abdou Galas xaritu ñepp la parce que dafa yene ñëpp jàmm seexal ñepp jam bëgg xalé yi bëgg ñepp secret Abdou Galas du lenen muy ke limu yene bopam la yene ñepp lolou moy secret Abdou Galas. nga am nag benn fans bo xamni dafa dëkk Medina. mo bëggoon nga mayal mako lu ndaw. Numbe waaw Numbe yaayu Adja da la bëgg dama la duggal statut rek. Mm-hmm. numbe yuuxu ko nima tani ki rek laa bëgg wax nima bo démé message bi na egg ci mom ma bëggon nak nga may ko dédicace numbe borom Medina yaayu Adja nga mayal ma lu ndaw gis bëgg yalla mo koy def ci jaam min bañ ci jikko lay doon numbe yaayu Adja su ma bëgge ma la raw doomi ger mi dafay ñi may jam-jam looleey ndumbe ma koy may waa Sénégal di ko may soppey Abdou Galas daale ndumbe bégeel man mi de bége ndumbe xàppil man mi bége la yaayu aja na la jàmm sonol daal aji ndumbe jëlal loolu yaa moom yaayu aja waaw dafa leer kon numbe loolu nga am noonu orange money bi après na tëmb dama lay pousse numéro Abdou ndànk na nga gore nag maa ngi yow on se waaw kay noonu la demee ñu gis ne jàkkaarloo yi ni ñu si toogee dafa jéggi dayoo dafa doy waar mais est ce que tamit man du ma jël soxna woo Abdou mu ñëw def jàkkaarloo ndànk waaw non fii moom li fi neex maa koy tëgg loolu moom yàlla moo ko dogal ñu koy sant yàlla nag wax dëgg yàlla jàkkaar jàkkaarloo yeeg soirée yeeg lépp ku xewle iñaan bu sañoon woo Abdou Garas mais nag jàmbaar amul ku yàlla dimbali moo euh, may ñaan yàlla suñu borom gën ñu def ci xolu doomu adama yi parce que woykat rek bu dee woy talent rek doyul tey jii boo doon woy nit ñi ñëw ñu sa soirée wala ngay def dara nit ñi d'accorduñ ci loolu boobaa dangay xoolaat sa bopp bu baax a baax a baax a baax ñu sant yàlla bu baax yow xam nga ne boo xewlee jaaxaarloo dañuy ñëw wàcce ko lu dul jàkkaarloo sax dañuy ñëw wàcce ko. ñu ngi ci ay ñu ngi ci ay yeneen affaire yoo xam ne nii tamit gars yi dinañ ci teg seen bët. incha allah comme le dis li mu may yaay booy yi nga xam ni man mii maa ko war a couvrir ànd ak sama caméra man. Mhm. loolu noonu nekk lu doy waar. Abdou ñu jàll si beneen question. Mhm. yow sa relation ak yeneen artistes yi nga xam ni dëkkuñu si secteur bi nga dëkk. Mhm. yan relation ngeen am. parce que dafa melni ni nitu nit ñi nga parce que maa ngi fi fekk ki ki ñu naan Modou Mbaye Tama. mi ngi doon di ma dégg mi ngi Aha. toog. Mhm. waaw Modou Mbaye moom su loolu weesoo moom sama mbokk la avant ñu nekk sa ay xarit ndax bu ne woon puuce ñooy ànd dellu xombul papaam ak sam papa la man ak moom la kon li ñu boole li ñu liyee du ay sax aar muy def aar nag mën ko lool bëggu mhm. mën ko torop yéwén ci lool. bëgg ma man Abdou Galass yaa ngi dégg moo tax te tamit gis nga nit amul lu dul ki ko bëgg ndax kii la bëgg rek moo la sonal mais ki la bañ daf la noppal mu nekk nit ku baax nag dina ni tama ji il faut mu ni tama ji waaw foog ñu jàpp gaam ñu jàppee gaam dañuy xawaare sax waaw foog ñu ambiance tuuti def yëfi def yëfi géwal pire ñu xam ne tey ñun même bu dul clavier dara lu mu si munti doon dañuy woy mhm. parce que woy dafa nekk ci ñun dafa nekk ci suñu direct nee naa la woykat yëpp xombal xombal la ñu dëkk. xam nga loolu <laughs> Youssou Ndour puufun la dëkk jàppal. Mm-hmm. Thione Seck. déglu leen waaw Thione Seck. Mm-hmm. ak Assane Njéefun mm-hmm. la dëkk fa la ñu jugee yaa ngi déglu. Abdou Galas xombal Galas xombal la jóge Daba Sey xombal la jugee. yaa ngi dégg. kon daanaan yëpp xombal la jóge yàlla moo def loolu faatu Guewel noonu. kon defe naa ni Sénégal musique Sénégal kon xombal la yaa ngi déglu bu baax loolu ma la hmm. wax moo tax ci aar bi dañ ci am place li ñu moom li moom dañu ñëw pour jël ko parce que tamit dañ ci am place Assane bu xombal la dëkk kon mi ngi bu ma la dee limal du fi du fi jóg ndongo mbaay bi doon tëgal Tyson ay ay ay talent rek ñoo ko jóg moo tax foo ko foo fekk ku fa doom day gëm boppam parce que day xam li nekk ci moom hmm. xam ne moom aar moo nekk ci moom dafa war a prouver Mm-hmm. noonu la demee. Mm-hmm. waaw léegi Modou mbaay moom mu fi doon tudd léegi ma bëgg mu ñëw fii rek <laughs> ak Pala fi maye fi lu ndaw. nga <laughs> ànd ak moom parce que li mu li ma bëgg Modou mbaay maye ko nii. Modou bu booxee tama ji nee lay toog rek. waaw yow nga ñu waxtaanee ko nag ñu xawaare wàcc. waaw àllam yaabal rek. waaw tey Abdou Galasa woote Abdou Galasa ah, xewee. tey damay dem rek démb. bu Modou bu Modou mbaay di préparé. Ah. Abdou Galas.

ñu jàppale gën a dawal yërmande gën a dawal yërmande ci jeunesse bi euh, ñun tamit ñu gën a góorgóorlu gën a xam bu baax fii ñuy teg suñu tànk xam ne àdduna waaw ah, lu la liggéey mayu dara du la ko may te nag dëgg la mer am na ay affaire yu baree bari xew na fi mais ñi ngi ñaan yàlla ñu nu jiite am yërmande ñun ñu nu jiital tamit ñu ànd ak xel ànd ak yar ànd ak teggin ba fi ñu bëgg a réew mi ñu yóbbu ko fa parce que aduna loolu rek aduna mu solo. ma laaj Abdou Gallas ndax instant yi bët bi jot Abdou grand théâtre bi parce que man xam naa ni grand théâtre moom boo ko defee man waxuma ay HLM ak yeneen i nii ñaari tali rek bu ñu génnee dina am ñu dul dugg léegi Abdou kon lan lay xaar pour loolu. yow Abdou galas woykat la te woykat dafay ñaan yàlla saal bu dul grand théâtre sax damay ñaan yàlla tegg fa. dëgg la. Bercy Wembley fu mu ci mën di doon Abdou Galass ñaan na yàlla teg fa. Mhm. loolu la visé et puis loolu la teg so dëgg la dafa ñaan yàlla. Mhm. joué fépp waxuma lay grand mais Abdou Galass bëtam. Mhm. du ay grand théâtre rek. parce que tamit fii lu fi doomu aadama yor. suñu borom moo la ko may. lu fi doomu aadama am yàlla moo la ko may. te yàlla moomu di maye ba tey mi ngi fi. mais pourquoi pas. posé gëm sa bopp xam ne fu nekk mën nga fa teg sa temps bu ne mën nga ko gérer loolu la rek Abdou Galas tegul bëtam si ay lii de mi ci yeneen affaire ñoo ko déggandoo eh, yow la dafa fekk ma may caayin sax dama caayin baa ngi bëgg a kii <laughs> dafa mel ni agaleel ñoo ko déggandoo dafa mel ni instant yi les carottes sont cuites ndax Modou Modou Mbaye pare na attaaya te Modou Mbaye dama bëgg loolu noonu muy ñëw indi Abdou Galas war si way lu neex lu am jom moo koy may sama rax waaw ki nga xam ni moo sës si man rëkk te du ma rëkk Ndeye Sylvie Diallo mooy caat caat ma lay e may lolou diko may Sylvia borom Italie madame Sall yaayu mama ak mohammed diko may ñom yoro sama mafia bi sama wa koñ faté wu malen li gaay yi di indi yeen lañ ko may wa Abdou ñu dégage. do ñaaw di ag ba ngay ñaaw yaa ñaaw sa gën baaraam kay wone ma bela sama Falma. ji ɗon to mbaari gobay sammadou lan noon debbo ɗigen calay lan lobaga wax noon la ah, yaan saf ku jëli jooy yaa xam la ngay jooy xool xasan na ko bu ba jigéenu mbaay dangoone dangoone dangoone mbot mbaay curukle ab sa mbaay biram ma daali ab sa njaay moodu mbaay moodo moodu jal sam bël na ba sambay sama borom janjak joor ndeysaan yéen a seet si laala yéen a seet si xale bi xew ci jamono waaw dali doomu yaay tubaabe ay mooy ko li nga nopp deret lay doon ci yow saa bu yëngoo Sénégal dañu maa bëgg lool li nga nopp deret lay doon ci yow saa yaa nga ngay diwaay diwaay diwaay diwaay xam naa ni xale yi Sénégal dañu maa yónni yàggam ci ma loole su ma màggatee mbaa ma sibbi sama remplace yi la jafe ndax mën naa ci amoore bëgg naa laa yee yow defal lu la neex yaa tey bëgg naa laa yee dumbe yow defal lu la neex yaa tey ku ci lox si si doy bëgg naa laa மலை tolloog sa ndey waaw waa sama gars yi ñoo ko déggandoo yéen ñi nga xam ni yéen ay bëggee Abdou Galass yéen ko déggandoo kon Abdou Galass nee na yéen a tey def leen lu leen neex yéen a sam ànd sek Modou mbay li nga xam ki nga xam ni tamana fep tamana tama na partout. <laughs> waaw loolu am na diko ko wa Modou mbay ñu bëggoon nga sanni ci ñaari cadeau rek su mu nee wa mais lay bégee doom day ginnaaw su ma bégee ah, Sénégal bégee àdduna ah, di ña li ma ci sanni moy du du bari ñaari cadeau yi ma ciy sànni du bari tax yaakaar na ne fi ngeen ma fekk ni day sama kër ndax comme ni ko Abdou waxee rek. bu nu bu nu bu woon delluwaat de ñooy ànd dellu xombal kon nag